mu amoon juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent Golbert Diagne turam dëgg di Alioune Badara Diagne daal dinay génn àdduna ni ki tey sa àjjuma ji yemoo ko ñetti fan si weeru avril atum 2020 bi ñu nekk sa dëkkam di Saint-Louis moom moomee nag Golbert Diagne daañu ko dënc rek ca armère Marmiyal ba nekkee foofee ca Saint-Louis gannaaw ba mu préparé woon ba noppi foofee ñu ko war a dënc loolee nag tax ba ñëpp bañ yëggee xibaar wi rek ku nekk ngay def témoignage si moom Marie Madeleine Diallo nag nga xam ni Golbert complice am la woon daal dina si àddu la mu xamle mooy Marie Madeleine mooy rek kaddu yu daw yaram la mu yëkkati di naan rek ñàkk na confident di nit ku mu jàppee woon comme frère am laata muy naan sax ñàkk na xarit si noonee Marie Madeleine ne da mi ngi fàttaliku sax ba ñu nekkee xale nga xam ne rek kii di Golbert Diagne da doon ñëw seen kër di seet si frère bi tey moom Marie Madeleine sax ni da ko doon faral di tooñ foofee nag la xolam feesee rek mu ne rek mënatula addu si bile mbir ndaxte dafa métti laata muy koy ñaanal waaye laata loolu Marie Madeleine xamal nañu sax ni eh, ba ñu waxee xibaar wi gëmu ko woon laata muy naan Golbert monument la woon si Saint-Louisien yi te da doon teew si bépp circonstance foofee ca diwaanu Saint-Louis si noonu muy naan sax Golbert dina leen wéetal te àdduna yëpp ñàkk nañu ba mu ca noppee moom Marie Madeleine xamle na sax ni ñoom ñoo ñee ñëpp ñoo nekkoon ndoor rek si rajo boobu ca Saint-Louis nee na moom Golbert mus na leen faa wax ne sax bés bu mu déddoo àdduna bu ñu yàkkamti mbir yi nañu def rek na mu waree dëj bi ku nekk solo ba mu baax te rek ñu wëral ko si place Faidherbe bi bàyyi askan wi ñu ñëw def seeni témoignage te cortège funèbre bi nañ ko jaarale rek si buntu rajo Saint-Louis ba nga xamante ne nii rek fal tàmbale carrière am euh, la ñu rendre ko fa dernier hommage Orange laata rek ñu koy yóbbu eh, ca armeria mu xamle woon ko moom Golbert Diagne Marie Madeleine eh, xamal ñu ko comédien bii di Lamine Ndiaye tamit jooy na kii di Golbert Diagne ci témoignage bu mu def ci euh, xaritam boobu wàññeeku la xamle ni sax Golbert kilifa la woon waaye itam patriote la woon te ku nekk rek mën naa bénéficier woo ci héritage am ci noonu moom Lamine Ndiaye di xamle sax ni rek Golbert da doon sàkku saa su ne ngir ñuy nettoyer armée yi gannaaw ba mu mësee sóoraale ni rek bés dina ñëw mu dëddu àdduna ba mu ca noppee nag la ko ñaanal ngir yàlla yàlla euh, buur bi xaaree ko aljana si noonee rek la xelam delloo sax si bés ba ko Golbert joxe woon kàddu bu rafet foofee ca Thiès laata rek muy jooy jooy yu métti moom lamin ba tey rek si réaction yi depuis ba xibaar bu nakari bi jibee waaye bile yoon ak Néné Komé bi nga xamante ne ni rek mënul woon gëm bile mbir nga xam ne da ko jàppee woon rek comme poisson d'avril moom nag Néné ba mu yëgee xibaar bi lu mu njëkk a wax rek mooy poisson d'avril la waaye dafay delloo yëpp Eh, si loxo yàlla laata muy xamle ni rek nitu valeur moo dem nitu ku bëggoon fa mu sokkeekoo di Saint-Louis théâtre national bi ñàkk nañu waa Saint-Louis ñàkk nañu waaye tamit askanu Sénégal ñàkk na mu xamle ko moom mu nen comme ba mu sa noppee la yokk si ay kàddoom ni Golbert ñëpp ko soppoon ndax rek talent wam ak ni mu bëggee dëkkam di Saint-Louis te bu yàggul dara la def témoignage si moom moomee nen comme si soirée ba nga xamante nii rek yàggul dara di sargal Néné Komé mu doon nit ku exceptionnel ñu yàgg ànd diggo mu ko doon faral di tooñ saa su ne mu nekkoon nit ku ñàkk problème eh, ku mën a sonn si nit te dëggu laata mu koy jaal famille yam askanu Sénégal yëpp rawatina waa Saint-Louis moom Néné Komé journaliste sportif groupe Futur Média bi di lay jaw tamit daa dinay rendre hommage Alioune Badara Diagne moom nag Laye Diaw nee rek moo ko Golbert ñoo bokk bëgg-bëgg di football mu nekkoon frère am bëggoon di yendu foofu ca rajo ba ca Saint-Louis laata muy naan Saint-Louis ñàkk na soldat bu nangu woon liggéey waaye ñoom it ñàkk nañu confrère ñàkkul raw xarita te da doon faral lekk di dem saa sune di ñaan si kër gi mu war ñibbi tey di bàmmeelam laata muy naan xarit bu gën a fidèle Golbert Diagne amul Bougane Gueye Dany desul si témoignage yi moom it benn yoon gannaaw ba mu xamle ni sax ni Golbert Diagne euh, formé jaaxle na ñu si lu ñeel bi le métier di tasub xibaar te moom moomee Bougane bokk na rek sañ Golbert formé te kenn euh, umpalewul rek na mu bëggee dëkkam moom Golbert gannaaw ba mu doon faralee sax di naan dëkk si dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën ñëpp xamee woon ko sax si kàddoom yooyee te dimension de l'homme dëgg la euh, la fekk rek mu waajal bàmmeelam laata muy nelaw moom Golbert ba mu weesoo ñooñu nag doon woote di témoigner en direct ca RFM ñeneen ñi dañoo témoigner rek ak ay bataaxal yu ñu fësal si euh, réseau sociale bi nii di Instagram euh, ñooñee nag bokk na si kii di DJ Boubs turam dëgg di Boubacar jàlloo mu xam leen ni rek saa su ne face à face père fils gannaaw ba mu nekkee woon waajuram bu góor di conseiller wam laata mu koy ñaanal euh, tey sàkku rek si xaritam ngir ñu ñaanalal waajuram bi di Golbert Diagne wàññeeku tey Pape Oumar Diop tamit ñu gën ko xam si turu pod bokk na rek eh, si ñi nga xamante ne ni def nañ témoignage si Golbert Diagne à travers réseau social bi di Instagram moom nag eh, Pape Omar Diop eh, fësal na sax am ab photo comme ni ko ñëpp defee rek ne rek waajuru théâtre sénégalais dem na nekkoon idolu peuple bi yëpp di nekkoon ka nga xamante ne nii la mu def rek nit yëpp gis ci seen bopp laata mu koy ñaanal rek ngir suuf oyof si kawam moom Pape Omar Diop nga xam ne rek ba mu nopp toppee kii di ab Banu Stress Aïcha Balago Seck Pape Diouf Wally Balago Seck Sonia Diop di actrice Mamadou Mohamed Ndiaye di taskatu xibaar ak yeneen i célébrité rek daal dina ñuy def ñoom i témoignage si kii di Alioune Badara Diagne ñu gën koo xam si troupe Golbert Diagne laata rek ñoom ñu ñi ñu koy ñaanal yàlla buur bi rek ngir mu xaaree ko aljana si noonu ñun tamit équipe Dakar Buzz yëpp di koy jàll ay mbokkam jaal ko taskatu xabaar yi jàll ko ñay yëngu ci wàllum théâtre ñëpp eh, te koy ñaanal moom mu Golbert fa mu jëm gënal ko fa mu jógee ko yàlla xaar ko ci aljana yu gën a